mën na maa bër laay wax boobu ponkol laa ëkk kaay boo déggee tëbi ëkk ah. di daw di dem di tëb mooy tëbi ëkk mhm. mm. booba moom max dëgg mag laa lool mhm. booba maa jiite gune yépp bu ñuy bay mhm. maa jiite man 1926 ci laa jublu penku man dégg nga xam nga loolu waaw 26. 26 damaa jublu penku ba ba ca ba ca diwoon di 27. sama baay hmm. moog sëñ Touba nelawandoo 27. Hmm. ndax sama sama sëñ Touba na hmm. ba ba suñuy ñoree. saañu yi ñu eh, di def pepp. booba la sëñ Touba nelaw. booba daal mag laa moom wax dëgg yàlla. ndax ah, am ah, mooy mooy atam piste gaawaan ba boo dégloo ma wax la li ma doon def moom ci yéen njaareem moom sëñ Tuubaa bi mu ñibbisee ci géej bi mu ñibbisee ci géej gi mm-hmm. ma wax nga booba Tuubaa la daa nekk fu ne mm-hmm. léegi bi mu ñibbisee njaareem la toog ba mu nelaw njaareem la nelawe mm-hmm. dematut fenn dégg nga bu nu xëyaa fajar teel la ñuy jóge fii dox dem jaaree bu nu demee gis nga buntu eh, jumaa jaa ngi nii de kër gaa ngi nii eh, ñu de ñu def barrière ci diggante bi nii barrière boo xam ne bi kenn mënatut a jëm ci dugg ci jumaa ji kenn mënatut a dugg kër sëñ bi barrière boobu dañu koy tëj. saa boo xamee ne nit ñi na wër a wër a wër a wër li ji jëpp ak barrière bi diisee tàkk booba isin bi bu diisee tàkk seen Tuubaa day def tëll ñu ne tëdd leen seen Tuubaa ngu ñëw na ñëpp tëdd boo ko bëggee gis-gis bu baax lala la wax nii ngay def say say joxo ci say gët waaye bu seeni bët day mel ni ampoule lañ la teg bëccëg dootoo mën a gis nga xam ne day jóge ci biir kër gi nag jëm si ci nit ñi ñu ne tudd leen sëñ Tuubaa Ngongu bu ñëwee dañuy tijji barrière bi dégg bu ñu ko tijjee mu mu dugg taxaw dina taxaw waxtu jublu penku yoon téere baa ngi bii téere baa ngi ci loxol càmmoñ bii kurus gaa ngi fii mu taxaw ŋàbb ko nii jublu penku bu taxawee taxaw taxaw ba xam ne taxaw na wax toog lu topp mbaa waxtu du wax ak kenn kenn kenn kenn du ko wax moom daal téere bi lay ŋàbb kurus yi bu ba mu ba ba xam ne toogam jël na mu daal di def ni wëndeel bopp bi ñu ne mu ne ñaanal nañ ñëpp mu daal di wàññeeku génn ah, dërëmi ngudd yooyu dañ ko woon kenn du ko jegel kenn du ko laal dañu moom du laal xaalis dañ koy dañ koy sànni ci biir mu taxaw rek ñu di ko sànni ci biir di ko sànni kenn du dugg ci biir lu lu sant ah, ah, ki nga xam ne mooy bëkk néeg bi ba mu tawee ba mu tawe kufo fa jëkk dangaa buub xaalisi nguur di ba doyal ndax day too soolu day soolu dangay ñëw di tànn bi bu tawee nag day génn weex tànn nii nga ñëw di for waaw booba boo dërëm boobu mën nga cee jënd yaari nag aku fas ci dërëm di ci wodd sa waa kër ñu di ci lekk ba déwén ci dërëm bi su ko defee ngi nu nu bu nu siyaaree ba xam ne ñibbi jóg na ba def la ca kër ga ñibbi si fii bu ca àjjuma daanu jëlu dem daal di kër ba la da da daa doxe yooyu laa bay moom la la sol de booy dox nga dégg mu kokket kokket kokket yow dikk nga kaala gi moom da ngaa muuru rek. da ko bu muur sikkim beeg baax beeg lépp. moom da daa muuru moom dara kenn du gisal daraat. teg nga loxo yi sax feeg deful nii ni def nii. teg nga loxoom doo gis. lépp da koy muur. day jot day yi da koy muur ba dag weex nag rek la daa yor weex am yàqu. man de daan naa ko gisal sama man waaw du wax ak kenn kenn man de jóge foofu ca pàkk ba mu ne woon wax na ma dégg déedéet kenn mënu ku la ko wax day waxu dëgg ar ba léeg-léeg nit ñi ne jël yëpp tëdd ndax ah, yéem ko ni mu mu ngook mu nekkoon góor gi xaar Diouf muy indil ñu waxtaan wu yaawoo xam ne seq nañ kook moom aljuma ji génn lépp nag mu dellu siwaat ci nekkinu Serigne Touba ak na mu doon euh, doxaleek nit ñi nga xam ne ñoom ñoo doon nekk ak moom saa su mu mel ne góor gi xaar Diouf at ci bëri na téeméeri at juróom euh, ñett ak lu topp waaye mu mel ne xel maag dat